bismil ilaahi delsi naa ngir wayati seexi sëriñ bi tey murid yi bëggati seexam yi ñoo xam yàlla ñoo ko jaamu ñoo saxaloon wér de daa ko baamu seexam yi seen pas-pas ya daaraw xel ya lii tax ñu am ngërëm yàlla xumboo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 loo ci am rek day daal di doy waaw ndax sëñ moom lim seexal ak li ne ci moom lépp moom mënee su koo jeexal ba tax nag ginnaaw loolu dañuy jiital ci nuyoo beeg siyaar bi rek suñuy kàddu sëñ Muntaxa Mbàkke xalif général de murit ak sëriñ Maxtaar Sugu xalifab sëriñ Jéeri Waadaan ak njabootuk sëriñ Jéeri Waadaan gi yëpp waaw di ko tàmbalee ci sunu bunt ci kër sëriñ Jéeri Waadaan muy sëriñ Mamm Sugu mom señ Ahmad Tasrif mom señ jeri wada ak njabot gi yep waaw comme niko señ mam mo Touré waxee rek no ngi woote ci turu señ jeri wada man mi di seen talib di seen dom di seen lepp señ bamba Sugu mom señ mam ma ma ngi wo njabot gi gep ak talib yi ñep rek ak njabootuk señ jeri Waadaan gi nak fu waay mën ak l'islam bi yep ma ngi wo ñep ci bisub sëriñ Mamouma Touré yi nga xam ne da koy defal seexi sëriñ Touba yi ndax mën nañ ne seexi sëriñ Touba yi buñ ko tuddee kenn jiitu ci sëriñ Jéeri Waadaan waaw ndax sëñ Jéeri Waadaan ku nekk xam na ne ni meloon ak sëriñ Touba bari na sax mag ngi ñu daan wax naan sëriñ Touba ko daan wax naan ko bu du woon mën a di yow waaye loolu lépp rek ak sant la waaw ndax taxul sëriñ Jéeri Waadaan li mu am ci yàlla am ko ci sëriñ Touba. ñëpp xam nañ ko ab jërëm ba tax na kon ñoo ngi woo ñëpp ci bis bi nga xam ne bisub sëriñ Mamadou Touré la ñu di ko def bisub seexu sëriñ Tuubaa yi waaw di nuyu bu baax sëriñ Mamadou te di ko ñaanal yàlla guddal aw fanam ba lim bëgg liggéeyal sëriñ Tuubaa liggéeyal ko ci ñu baax ñi nga xam ne ñoo àndoon ak sëriñ Tuubaa yàlla def mottali ko lépp kon ñoo ngi ci woo ñëpp ginnaaw loolu maag samay rakk ñoo ngi nii ak njaboot gi taalibe yi ñu ñu àndandoo di ko woote waaw ndax sëriñ Tuubaa kat dafa doon koo xam ne ku nekk xam na ni mel ci lislaam ku nekk xam na ni mel ci nitam kon sëriñ Jéeri Waadaan bu dee wàlli wu baax wax ku ma laal baax ku laal ku ma laal baax ndax dama laal sëriñ Tuubaa laal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon bu nuy wooteel seexi sëriñ Tuubaa yi ñu boole ko ca comme na ko jàngkat ba waxee rek loolu rek moo ci am Ah, sering sëriñ tuba borom wadan seexi saa borom lagan ah, kon ñi ngi wo ñep di wo talib yep suñu xol set na baxa bax baax jërë ngeen jëf ñi ngi nuyu ñep bismil ilahi del sina ngir wayate seexi sëriñ bi tay murid yi bëggati seexam yi ñoo xam yalla ñoo ko jaamu ñoo sa xoloon wér ko baamu seexam yi seen pas-pas ya daaraw xel ya lii tax ñu am ngërëm yàlla xombo